asalaamaaleykum mbokk yi maa leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di leen gërëm di leen sant si li ngeen di déglu yeewu podcast tey suñu sujet bi ça va être bitcoin bitcoin sa soulève bokkut question ñu bëri dañ ko ragal waaye li nga ragal dafa fekk xamoo ko rek donc tey suñu objectif mooy ñu découvrir loolu leen lan mooy bitcoin. Bitcoin mi ngi doon lu ñuy woowee communément crypto-monnaie donc euh, la première question qu'on se poser mooy lan mooy crypto-monnaie crypto-monnaie c'est une conséquence directe de lu ñuy woowee blockchain alors blockchain c'est terme boo xam ni c'est terme fourre mais ci biir blockchain tu as un de technologies et de techniques ci biir am nga cryptographie am nga ay langage de programmation comme C++, JavaScript, Go Rust Python et cetera am nga hardware ak carte graphique yeeg processeurs yi et cetera et objectif loolu lépp mooy juste ñu am benn base de données globale décentralisée. On peut aussi parler d'un registre distribué donc une base de données globale décentralisée nga xam ni ci biir tu as des participants volontaires et que données bu nekk ci biir rek dañ koy répliquer ci ñëpp. données yi nag elles sont stockées sous forme de hash hash pour ñuy xam cryptographie c'est juste une empreinte cryptographique donc euh, de la transaction et transaction yooyu noonu c'est possible grâce à des tokens et token yooyu noonu ñooy permettre une certaine traçabilité maanaam transaction bu nekk ku nekk mën nga ko gis te ku nekk saa yoo dépensé benn cryptomonnaie mën nañoo xam cryptomonnaie boobu fu mu jóge mais li neex ci lii lépp mooy que adresse yi nit yi di utiliser so anonymes dinañ ñëwaat un peu plus tard ci anonymat relatif boobu noonu nga xam ni moom la crypto-monnaie yi di offre tey su wax blockchain xelu ñëpp ci bitcoin la ñu ko dem parce que moom la ñu créé en 2008 et que bitcoin mais je parle de la crypto-monnaie ici au début sa valeur était égale à léegi nag. très vite développeurs dañ ko adopté ndaxte lu mu doon offrir anonymat euh, et que ça représentait une alternative à l'époque parce que soo leen fàttalikoo 2008 2009 moo nekkoon crise des subprimes crise des subprimes moo nekkoon bokkoon na ci crise yi gën a graaw bi touché woon finance internationale et nationale au final day touché société bi yëpp donc bitcoin li mu doon offrir à l'époque c'était soxlaatuñu banque centrale mi nga xam ni moom mooy émettre ba pare moom mooy gérer circulation wu xaalis soxlootuñu tamit banque commerciale yi nga xam ni ñoom ñooy utiliser épargne xaalis épargne nit yi pour spéculer léegi mouvement boobu noonu qu'on appelle communément un mouvement libertaire mu ngi mu ngi jóge ci cypherpunks yi cypherpunks si c'est un ensemble de personnes qui se sont réunies ñu ne état bi mu ngi am de plus en plus doole. mais aussi que état état yi sax laay wax ñu ngi contrôler de plus en plus nit yi donc ñu ne ñoom on va utiliser la cryptographie pour préserver euh, la vie privée des gens. et aujourd'hui parmi les cypherpunks les plus connus au monde am na ñu Julian Assange am na ñu Adam Back am nañu Al Finney te ñii ñëpp soo leen defee ay su seen liggéey di ngeen gis ni impacté nañ suñuy dund mais plus que lu ñu mën a xalaat en fait. savoir aussi que quand on parle de blockchain et quand on parle de Bitcoin lépp c'est open source donc sur GitHub vous avez le code source vous avez les tests euh, vous avez les euh, euh, tous les problèmes qui sont remontés par les développeurs et que su fekkee nit ku dañ kumpa nga euh, aussi que nit ku bëgg a comprendre nga mën nga dem nga xoolal sa bopp mën nga sax découvrir ay bëgg yow même nga signaler leen et cetera. donc tey su ma ko doon résumé bitcoin ñett affaire la donc euh, on a benn système de peer to peer distribué amul benn serveur wala point de contrôle central donc bitcoin yi on dañ leen di créer grâce à lu ñuy woowee minage mais minage ci boppam loolu day dinañ ko def ci benn podcast vraiment dédié parce que liñ ci war a wax dafa bëri. mais grosso modo c'est juste que benn participant donc benn mineur dafa war résoudre benn problème mathématique complexe pour mun a varider transaction yi nga xam ne dañ leen dugal ci benn bloc loolu moo tax ñuy wax blockchain parce que ce sont des blocs qui sont enchaînés entre euh, eux via un système complexe Bitcoin aussi c'est benn protocole protocole boobu mooy définir mode de fonctionnement au minage bi. protocole boobu mooy définir validité wu transaction yi protocole boobu noonu tamit mooy définir comment fonctionnent les nœuds du réseau peer-to-peer dont on a parlé et protocole boobu tamit mooy assuré wu d'une chose et vraiment benn chose bu nga xam ni c'est la base de Bitcoin mais que le nombre maximum de Bitcoin qui sont émis c'est égal à 21 millions d'unités et il est prévu que chiffre boobu noonu ñu atteindre ko en l'an 2140 incha allah alors Bitcoin enfin c'est une crypto-monnaie c'est une monnaie virtuelle symbole bi c'est BTC alors c'est plus qu'une application parce que Bitcoin li muy comme possibilité dafa bëri donc du coup on considère Bitcoin glo globalement comme l'internet de l'argent maintenant à part à côté de Bitcoin gis nañ ni y a de plus en plus d'autres solutions de blockchain qui sont apparues à travers les années dont notamment Ethereum on avait iOS Euh, on a de des protocoles comme Graph Protocol, etc. bon maintenant que dugg nañ ci jeunesse bi sans vraiment entrer dans trop de détails mën nañ dugg ci aspect technologique yi dans le podcast que je suis